sant bu baax. di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla yàggal seen taxawaay te jàppale leen ci seen liggéey yi da ngeen fi liggéey yàlla ci yàlla def barke yàlla ci yàlla def barke yàlla defal leen jàmm ak xeewal te sàmm leen ci musal leen te sàmm leen te musal leen dafa leen jàmm barkeel seen liggéey itam sàmm leen te mu leen ci barke sëñ Tuubaa te moom bés bi yàlla na leen taxaw te yokk leen te nu yàgg feeñoo lool yàggul fee fekk nu yàgg leen ñaanal ne ñaanal yàlla na ko yàlla nangu na ko bëggee leen yàlla taxaw te musal leen te sàmm leen te jox leen xéewal yu bari te may leen kàttan koo xam ne at bu ne ngeen mën fee ñëw si màggal gi na ngeen ko bëggee yàlla leen ko bara màggal gi defal barke Seexul Xadim jërë ngeen jëf.